yaa sayyidan fil maali xala sarwaaw wa yaa muhibban faadi dahra ma sarwaaw inni ataytu li wajhi llaahi saa'irakum abxi bi naay la ma arju wax waaw faj aajo moo ca gën a gaaw Fallu lum wax boroomam mu ni waaw sëñ Fallu day fal di folli ci bu gaaw sëñ Fallu mat na ragal ci xarnu bii Serigne fallu bëgg ko moom day guddal fan Serigne Fallou bàyyi Cheikh Abdoul Fattah Mbacké boo ko bëggee di nga raw fii ci duniya boo ko dadoo fanu jëm am nga tuuma Alaaji Fallou Mbacké jikkoy Seyduna Muhammad lañ ko fàggul sallallahu alayhi wa sallama Alaaji Fallou Mbacké duñu noppi ci di ko way fii ci duniya bi defuñu fi lu ko gën fii luñ fi xayma kendu du sëñ Fallooy Mbacké jërë ngeen jëf mbokki jullit yi jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan ci télévision Futurs Médias waaye tey ci bis bu tedd bii nga xamante ni mooy bisub suñu jàmbaar ja bisub ka nga xamante ni dootuñu ko fàtte ci ñun taalibe Serigne Touba yi mooy suñu jàmbaari l'islam ja nga xamante ni toirfakal la moom la Sénégal gépp di fàttaliku tey tey jii ñu nekk fii ci Touba ci télévision Futurs Médias xam ngeen ni ngeen ko baaxoo woon démb ca màggalu suñu baara gi ngeen fekk ngeen jàkkaarloo woon ak suñu jii di ñang waaye tey jiit bi ñu xëyee ba léegi gis ngeen ñi ngi def ay ziar ci fépp foo xamante ni ci waa kër Serigne Fallou lañ wala képp koo xam si ne taalibe Serigne Fallou nga wala fépp foo xam si ne Serigne Fallou moo la njaboote noonu la ko télévision Futurs Médias di ba léegi ci kër Alaaji Baara ca Aliya tey jiit ñu xëy defee ko noonu ci bisu Kazu Rajab gii nga xamante ni mooy màggalu Serigne tey nag ñi ngi fii ci kër kii nga xamante ni kenn la ci njabootu Serigne Fallou waaye nekk kenn ci njabootu Serigne Abdou Fatah Mbacké mu Serigne Fallou ñu di ko ñaanal ñu duppee ko Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacké ma nga xamante ni moo ragaloon yàlla lool waaye man woon looyit woo xam ne kon or kooku lañ ko duppee Cheikh Abdoulaye Mariama Jaxate ma nga xamante ni autorité bi Cheikh Abdoulaye Lahat bi Cheikh Abdoulaye Lahat daaray kaamil Cheikh Abdoulaye Lahat kër mag moom Cheikh Abdoulaye Lahat université bi Cheikh Abdoulaye Lahat lépp Cheikh Abdoulaye Lahat moo yàkkal Touba ba Touba yaatu mu xotti mbedd 32 yi mboolem ku ku nekk njabootu Serigne Touba kenn ku ne mu dëkkal la. kooku mooy Cheikh Abdou Lahad Marème Diakhaté min ko duppee waaye way juróom bu baax wi nekk sëñ Abdou Fatah Mbacké nekk ci waa kër sëñ Fallou di ci kenn waaye yor communication waa kër sëñ Abdou Fatah waa sëñ Fallou Mbacké yëpp di ko ñaanal Mbacké yàlla na yàlla guddal fanam lool te yàlla bàyyi ko suñ kanam toar fa kàlla macha allah wax naa ni taalibe yi li mën nañoo sukk mën nañoo raam waaye xam nañ ku ñu jox seen xol waaye sëñ Abdou fata sa wajur bu baax wi taalibe yëpp jox nañ ko seen xol ndaxte nu mu dëggoo waaye ni mu bëggee sëñ Fallou bëgg ko sëñ Touba kon yàlla na ko yàlla fayal moo tax nag ñu ngi toog ci jàmbaaram ji nga xamante ni Baay Faalam la di ko liggéey di ko liggéeyal nekk ci léppam ñu fekk ko fii nag ci Touba Ndindi gi nga xamante ni sëñ Fallou lu mënoon a am ci àdduna Ndindi ko gënal mu fonkoon Ndindi lool moom mu ñëw dëkk fi dëkk ci fi nga xamante ni foofu la maamam naa loon sëñ Fallou ju baax ji waaye ñu fekk fi ay jàmbaar yu baax nag ku ci mel ni soxna Momi Kébé mais nga xamante ni wax naa ni ku bañ a gis jëfi Njóogu Kébé rek boo jaaree ci jumaay Touba ji gëmmal jëfi Njóogu Kébé du ci fay ba mu nekk jàmbaar di sàmm waaye nag di liggéeyal Serigne Touba ci wax ci ci njabootu Serigne Touba gi di liggéeyal Serigne Touba ci taalibe Serigne Touba yi di liggéeyal Serigne Touba ci dongay Serigne moo tax fu wax fu ni ko foo nekk taalibe Serigne Touba yi dina nekk sa wet ndaxte sëñ Abdoulaye ma Jaxate sa sëriñ bu baax ba moo waxoon ni ah koo àndareen ba déwén te mu mu tane la te dimbaliwu la yéen ñaar yem kon Cheikh Abdoulaye Malema Jaxate yàlla na ko yàlla fayal lii lii moo yoonu murit lii la fi seen wajur yu baax yi bàyyi woon lii la fi seen maam ji baax ji bàyyi woon moo tax gën a ko dogal waaye sëñ laat yàlla nag yàlla guddal soo fan. taalibe fonk nañ la lool taalibe yi respecté nañ la lool taalibe yi xam nañ yaay kan ndax sa jikko waaye taalibe boo ko siqalit teral na ko kon mbàkk yàlla na yàlla guddal soo fan ñu dénk la soxna su baax nag muy soxna maam su sàll mii nga xamante ni nit ku baax la ku fi yenu tey rek xam nga tey soxna su baax mi ngi si kër gi. daal fa kal dara manqué wu fi mi ngi liggéey sëñ fallu Thiaw loolu mën nañ ko seere bu wér ku ñëw sa kër fee ca Dakar it xam ni carrément tali bi sëñ Tuubaa da nga indi Thiaw jaay jaay léppam jënd ko taal bi kon Sall ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mu toog ak ndayam ju baax ji ajatu moom kebe di léppam. salaamun ala ibaadihi allazina stafa bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk. ci turam ak ci santam euh, nuyo boo xam ne ni nag mi ngi jóge ci suñ mbokk mi di Cheikh Abdoul Ahad ibnu Serigne Fattah wax dëgg yàlla yàgg na sama diggante ak moom lool booba ay ndaw lañu waaye keroog li li ñu waxoon Serigne Abdoul Ahad bi Serigne bi jógee rek Abdou Lahad yàlla na sew fan gudd mbakke nga wér te sax ci jàmm ma ko yiw ak jaamu yàlla gu wér lañ ko digale it ci la nekk toppal sa mag Moustapha lañ ko waxoon bul génn mukk ndigalam ngir mag mu mat mag la mat ñëpp sëriñ te du wor loolu lañ ko digaloon fëxal taraw lañ ko waxoon am nga ab yóbbal fëx ak raw a des ngir baaxi bokk di ab yóbbal na itte ji sar ku am itte la ndax yàgg nañ te yow xam nga ci dara kon bu fekkee ne daje fii ci ndindi nga xam ni bi ko Sëñ Tuubaa di sañculoo maamam El Hadj Mouhamadul Fadilu ñaar fukki at ak juróom la am loolu li ñu ci war a jànge mooy euh, la confrérie mouride day yoon woo xam ne yoonu ndaw la yoonu ndaw la fii ñu fi nekk ñëpp presque mën naa ni génnuñ génnuñ âge boobu jëmmi Sëñ Tuubaa mi nga xam ni mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg bi ko tubaab bi jàpp di ko yóbbu. amutoon quarante cinq ans matu ko matu ko te boo ko déggee da nga yaakaar ni mag lañ jàppoon maam Cheikh Ibrahima Faty maami kii waaw 33 ans damay bañ a préciser date parce que dama ci kii wér na ma ni maam na moom biñ koy yónni ndar muy wuy ji noon bi 33 ans la amoon moom loolu am naa ci lu ma leer bi ko Sëriñ Tuubaa naa demal tontu jël ma moom ci jëmmi boppam moom Sëriñ Tuubaa bi muy jël daara baayam ni ko bàyyi toogal ma aw la ci daara ji yore kër gi di jàngale di def lépp ñaar fukki at ak juróom-ñett la am ñaar fukki at ak juróom-ñett yooyu ci la taalif téere yu baree baree baree bare te ci biir taalif yooyu it taalif yëpp ci ndaw ñi la koy def Sëñ Tuubaa gisoo benn téere bu mu dem mag ñi te sawdu sixaar yi ngay dégg mooy ndaw ñi lay itteewoo jasbatu sixaar yi ngay dégg mooy ndaw ñi lay itteewoo te sawdu subaan yi ngay dégg ba muy dénkaane sax wàccaal saxiira naa la wax ndaw la jiital teg ci mag kon ñun ñii di ay ndaw nga xam ne ñooy yaakaari ëllëg ci yoonu murit li war a déggee ci màggalu kazu rajabin loolu laa bëgg ñu bàyyi ko xel liñ ñu ci war a déggee mooy sant yàlla ak sant la yàlla nit koo xam ne ni dafa am ci lu mu nekkoon Cheikh Mamadou Fadil am na ci lu mu nekkoon ci lan la nekkoon ndax bis bi toujours dafay wuyu ki ko defoon dafa nekkoon ci ndigal ndigal nag ndigal day jóge fu ne day jóge ci yàlla di jóge ci yonent bi di jóge ci eh, waajuram loo loolee ndigal nag weesuur lenn lu dul ñett yi mooy jaamu yàlla ak liggéey ak sàkku xam-xam mooy ñett yi nga xam ne bu amee ci dundu doomu aadama dund ko dana am njariñ dana mat sëkk dana mel ni mu war a mel waaye bu ci amut tamit mënta am njariñ mënta mat sëkk mënta mel ni mu jaamu yàlla mooy tax moo tax ñu ñëw dara taxut ñu ñëw lu ñu wéetal yàlla jaamu ko xam-xamit mooy tax jaamu yàlla mën a wér ndax ku tal ni yàlla kenn du ko jaamu ci tànd dangay xam ni bëgg ko ko ne jaamoo nga dem xami ko doo koo mën a jaamu mu nangu ko liggéey mooy tax ñaar yee baax ndax ku liggéeyut doo am loo dunde te boo amut loo dunde mën ngaa àbb ci yëfi jàmbur ci lu lewut te nit mënta jaamu yàlla ba noppi di lekk lu lewul beneen bu ci topp mooy mm, sant tamit maam Astou Sall nga xam ne wax dëgg yàlla moom lii rek taxut mu di ma gis waxtu ne mu ngi may gis ak magam ji nga xam ni ñu mm, ngi fi moom nag li nga doon wax ci moom rek xañ na seere bi ma ci def ci sama lënkale mooy waajuram di Alaaji Babacar Kebe bi mu fi bàyyi ko maa ngi ko fàttaliku waaye suñu mut laa waxoon na ni dafa am dimbalul yàlla suñu mut laa waxoon na loolu